maintenant bi ci des moom moom la ñuy moom la ñuy gis bis bu ne moom laay wax ne amul benn société ci àdduna bi boo xam ne da ngay fekk ñëpp juboo <laughs> loolu moom xëy na euh, bu ñu demee ba àjjana rek lay lay am mais àdduna bi ñuy dund foo dem te yooyu defe naa ni maxis yi leeral nañ ko foo dem da nga fay fekk ay parce que jëflante moo demee noonu ay nit yu jëflante rek faw mu am yenn saay ay jafe-jafe même ñiy jënd ak jaay même ñi ci yenn saay mu am ñàkk a juboo yenn saay mu am ay hmm. ay loolu mënul mënul ñàkk waaye nag loolu yëpp dañuy xool encore une fois comme ni ma ko waxee naka la ñuy tegee benn dispositif pour gérer loolu loolu naka la ñuy su suñuy ñoñ mu tàmbali ca kër ga damay wax ne bëri na fi fii ay ndaw yoo xam ne génération boo xam ne am nañu vingt cinquante ans trente trente yaroo wuñ ci kër ci mbedd mi la ñuy yaru enfant de la yooyu ñuy wax kii première vague mm. tey tey jii ñi ngi vingt cinquante ans mm. te ñi ngi fi ak ñun ak dëkkuñu benn kër mm. moo yenn saa ñu naan waajur yi nañu téye seen doom yi seen kër. Hmm. fo fan ñooñu fan nga leen di téye. léegi nag lan la ñuy xalaat ci ñooñu pour jël leen en charge tey jii. Hmm. amul amul dara lu ñu xalaat. ci ñoo xam ne ci mbedd la ñu màggee yaru fa et xalaatuñu hmm. dara. pour gunge ñooñu. bi ci des mais moom mooy réew mu mel ni Sénégal ak dëkk bu mel ni Dakar. kenn mënul fexe nii mu rëddoo ba jafe-jafe du am xam lan moo tax. tubaab bi bi mu ñëwee dafa jël lépp li nga xam ne mooy koom def ko dëkk yi jege géej ji lépp li parce que loolu nag dafa xamoon na li mu doon def. Mhm. maanaam bu jëlee gerte. Euh, fu mel ni ay mhm. saalum ak yooyu. indi ko fi dëkk bi jógee géej gi transformé ko mu nekk ci day dugal ci bateau rawale yooyu. rawatina nag Dakar nga xam ni moom moo gën a sori. Mhm. léegi Dakar 550 kilomètres carrés la. maanaam boo jëlee Sénégal ba mu daj. Dakar mooy région bi ci gën a tuuti. 0,3 pour cent du territoire national sénégalais 550 kilomètres carrés. boo jëlee région bu mel ni Tamba. 42 000 kilomètres carrés. Tamba mat na 76 fois la région de Dakar. waaw léegi nga xool Tamba. Tamba Kédougou wala Tamba Tambacounda région de Tamba. léegi région de Tamba rek laa la wax mat na 76 fois la région de Dakar léegi nga jël région de Tamba ba léegi laay wax. Mhm. y' a 15 à 16 habitants au kilomètre carré quinze à 16 habitants au kilomètre carré nga ñëw Dakar y' a 1033 habitants au kilomètre carré. au kilomètre carré. Mhm. donc léegi nga xool ni Dakar 550 ñi yeewoo waa Dakar waa Dakar ñi fi yeewoo bis bu nekk ñoo ëpp waa Gabon yëpp boo leen boolee mhm, te Gabon moo gën a yaatu Sénégal. Gabon def na plus de deux cent soixante mille kilomètres carrés. Mhm. Sénégal cent quatre vingt dix sept mille kilomètres carrés matu ko sax. Dakar nekk cinq cent cinquante mille kilomètres waa Dakar ëpp waa Gabon yëpp. xam nga loolu la moo ko waral parce que li ma la waxoon léegi tubaab bi moo jëloon lépp taf ko ci région géej gi rawatina Dakar. léegi bi ñu demee ba année soixante dix avec les cycles de sécheresse nit ñi commencé bebbeeku. jóge ci dëkk yi nekk mm. ñëw tafu si Dakar ñëw fekk si suñu mbokk mbokk yi. waroon na ma fay fekk ba ñu yeggalee waxtaan boobu. Mm. pour ñu comprendre historiquement naka la ñooñu nekkee ñu ubbeeku. dalal gan yooyu nga xam ne ñoom ñoo ñëw. Mm-hmm. mais nag ñu dem ñoom lañ doon jëngatu ci mbirum koom. bay ak napp dem ba mënatuñ cee jot. Mm. maanaam dëkkuwaay sax mënatu loolu dafay indi daf lay wan ni suñu aménagement du territoire dafa bëri loo xam ne dañoo war a taxaw liggéey ci te boo ciy liggéey doo ci liggéey politique da ngay liggéey ak ña ko xam mm-hmm. loolu moom mooy dëgg aussi en réalité euh, ab réew dañ koy tabax te na nga koy tabaxee bo ki nga xam ne mooy jox ko lépp luy mm-hmm. ki nga xam ne moom mooy menuisier jox ko lépp luy dénk mm-hmm. euh, ki ki nga xam ni moom mooy baykat jox ko lépp loo xam ne moom mooy jiwo bi demee noonu mais boo ko boo bëggee jël ki nga xam ne mooy menuisier ne ko léegi damaa bëgg. loo xam ne du liggéeyam da ngay ay jafe-jafe donc il faut que ñu ñu loolu dafa laaj organisation ab réew dafa am ni ñu koy ni ñu koy tabaxee hmm. boo demee ci république lébu république hmm. lébu dafa am nu ñu ko tëggee dafa am nu ñu ko organiser nga xam ni ku ci nekk am na kilifa cër bu ñu ko jox ci biir pénc mi hmm. loolu lay dox ci biir pénc mi te ñu nangul ko kilif teef googu mu indi façon nu ñu organiser ñoom seen koom nu ñu organiser seen dëkkuwaay ba ci dëkkuwaay yi. am na fu du ku nekk fu la neex ngay ñëw daal di fay sañ ci dëkk dafa am nu ñu ko organiser ñoom république lébu def ko ci ay pénc ba nga xam ne lépp dañ koy def ci euh, ci ni ñu bëgg a doxalee seen seen seen seen réew ni ñu bëgg a defalee seen pénc et mais boo demee yeneen dëkk yi tamit yeneen yeneen yeneen euh, waaso yi tamit danga fay fekk lu mel noonu. dañuy organiser dañuy et mais li doyen Albert doon moo wax moo mooy dëgg mooy dañoo am lu rafet ñun lu boo ràbb bàyyi woon ko fi ñu daal di koy wàcc dem di wuti leneen. loolu nag moo defal loo wax rek ñu ni tel tubaab wax na fi. lii tubaab dañu dañu wàcc suñu ànd.